yee gars yi what's good what's good it's your boy Lord Wes yi salaamaaleykum salaamaaleykum daal jàmm si ma chaîne YouTube comme moo koy faral di xam ne gënoon na fii tey si wàllum cinéma la ñuy wax en ah, je ma jox leen erreur yi nga xam ne ñoom laa gis ak conseils yi nga xam ne ñoom laay jox vraiment vraiment production yi xam ne ñu ngi dawal en ah, suñu série sénégalaise yi mais balaa ñu si gën a xuusan ah, di si gën a waxtaan bu leen fàtte abonné bu leen fàtte commenté vidéo bi ni ngeen di seetaan mën ngeen commenté mën ngeen commenté tamit bu jeexee ngeen mën a xam bu baax li nga xam ne moom laa nekk di évoqué bu leen fàtte pouce bleu bi chaque fois ngeen koy défend nañ ci gën a xuus si li nga xam ne moom laa ñëw wax tey après générique bi vidéo bi vraiment vraiment j'aimerais beaucoup de participation parce que li nga xam ne dama ko nekk di wax dafa nekk lu xam ne ñoom ñooy production ñu jot ko en am benn genre vision ñu mën a am benn genre ah, nit ñoo xam ne da jox conseil si biti ñi nga xam ne ñu si diaspora bi dañuy seetaan parce que mën naa a consommer film sénégalais yëpp yëpp wala lépp loo si YouTube Sénégal wala ñoo gën a conseil kon war nañ dañu bàyyi xel vraiment vraiment si critiques yi nga xam ni ah, moom la ñuy joxe bon balaa may commencer dama bëggoon expliquer tuuti li nga xam moom mooy tey du ma jël benn film rek mais damay jël les séries nga xam ne ñoo nekk di moom a suivre message yi foofu lay gën a dox leen tuuti un peu d'erreur ne gis naa ko ak li nga xam ne peut-être buñ a nekk lu impact. on va commencer avec Wiri Wiri ah, moom moo nekk série ne moo nekkoon ah di daw biir Sénégal kon ça veut dire moo gën a yàgg si série yi kon pourquoi pas commencer ak moom ça veut pas dire que ni Wiri moo dàq ñeneen ñi bon si wiri dama si gis ay affaires yoo xam ne peut-être suñ ko changé woon tuuti dina am benn ampleur boo xam ne dina ko jox wala dina changé un peu tamit ah bi nga xam ne moom la série bi di ah, ñoom ñoo ma nga nekk expert mais aussi tamit man xëy mi di seetaan melumaan mi maa ngi xaar benn côté boobu noonu wala beneen nit bi nga xam ni mu ngi koy seetaan le problème mooy wiri wiri tristesse rek la nekk di évoqué. du Sénégal imaginez-vous que nit mën a toog bu fekkoon sax ñoom dañu bëgg a seen film ñu traduire ko sur toutes les langues ah bu demee kon ñun ñooñu nga xam ne dañ koy seetaan ñi nga xam ne xëy na du ñu sénégalais lan la ñuy jàpp dañuy jàpp ni Sénégal fi dëkk bu triste la. si ngeen comprendre parce que boo xoolee Wili Wili première saison ba deuxième saison ay affaire de naqar rek moo fa nekk ay xam nga jaayante ba benn moment de joie moo fa moon mooy Jojo bu muy bëgg a jël sumbulu xam nga di ko wane sumbulu bëgg Jojo ak bi nga xam ni jamono ji au début Cheikhouna bëggoon na sumbulu genre yoonoon daal ngeen dund dund bu rafet mais en certain moment depuis Cheikhouna dem tukki rek film bi dafa dekk dafa catapulté carrément képp koo xam ni yaa ngi si film bi ah sa vie dafa triste te loolu nag dafa nekk loo xam ni mën nañ war nañ ko mën a changer parce que même Laalia mi nga xam ne moom lañ ne dafa gént boobu dinaa si ñëw carrément dafa gént mu géntee sax xëy na foofu bu fekkoon moom dafa dund nakar nit ki bu génn kay <laughs> xëy na da ngay génn dund bànneex euh, par exemple loo xam ni peut-être nit ñi ne ah ndeysaan bu amoon mujjee bi dina rafet trop mais bu mu demee gént foofu mu dafa gën a li nga xam ni moom la dund carrément si wiiri wiiri normal bi quoi mooy maanaam bu mu tuddee sumbul wala dund sumbul Euh, kon ça veut dire que ni war nañu xoolaat bu baax parce que je crois pas que ni li ngeen di dénoncer société Sénégal parce que yéen mën naa ne seen contenu moo gën a nekk a am valeur c'est parce que société sénégalaise bi carrément ngeen di dénoncer ngi dugg si kër yëpp ah ay recherche pour jox ko je suis maa ngi d'accord yéen aussi mais dafa am benn xam tam bu leen ko fàtte Sénégal du du naqar rek quoi mais am na tamit joie de vivre am na leen loo xam ne xëy na bu ko keneen seetaanee tamit ah, dina kontaan ne ah man ne bëgg naa dem Sénégal mais li ngeen di évoquer nii tamit boo leen xoolee Euh, day tere nit ñu bëri même muur yi nga xam ne xëy na toog nañ ñu bëri ñu Sénégal dañuy ragal am jabar parce que problème yi nga xam ni moom moo nekk foofu noonu kon il faut ñuy jéem a ñaari face yi nga xam ne moo ne toujours mooy bi face bi nga xam ne moom mooy dund mu neex bi li nga xam moo fa am même bu fekkee am ñu xaalis ak B bi nga xam ni moom mooy euh, naxar bi nga xam moom lañ fay gis ok deuxième chose bi mooy maanaam yéen seen choix bi lépp mooy lan kii am na oto ku nekk mu ngi dawal ki am na kër gu rafet amul kër goo xam ni à part bi ngeen demee si village bi gis ma ko benn kër goo xam ne ah di ngeen ne ah kër gii de moom wax dëgg fa yàlla moom Sénégal moom te yenn dëkk yi am nañ fa kon saa veut dire que ni boo leen tamit il faut ngeen sóoraale loolu. balaa may dugg si yeneen série yi bien préciser benn chose mooy maanaam le problème de Soumboulou. ah bu ne laa yaa nekk il benn affaire ah yéen j'ai vu que ni ngeen gis ngeen changer un peu les choses mais tamit ngeen di xalaat benn affaire nit ku nekk comment bu géntee bu yeewoo c'est pas par force dafa war a fàttaliku comme man mi ma tëdd nelaw yeewu gént mën am du ma fàttali nga xam ne moom laa gént démb peut-être naa c'est fort tuuti mais ça nga xam ne moom mooy gën a fréquent ah li nga xam moom la gars yi gën a gis ah parce que j'ai eu parler avec ah, une sociologue même benn psychiatre bu nekk fii itam jëm naa ko laaj balaa may wax si affaire bii nii euh, nee man li gën a li nga xam ne moom moo gën a wóor mooy nit ki ah, bu nekkee ak commande mën na nekkaat ki nga xam ni peut-être bu fekkoon ab sàcckat la wala ab raykat la woon ah bu nekkee commande mën na changer quoi xam nga mën na changer nekk beneen nit parce que fàttaliku li nga xam ne moom la def. mais bu fekkoon dafa nekk ab raykat boo xam ne si àdduna dafa dox mu changé dund beneen dund nekk kilifa genre yu noonu nekk nit koo xam ne dafay def bonne action mu nekk en commun mën na delluwaat si affaire de ray nga xam ne moom la doon def wala sàcc bi nga xam ni moom la doon def essayez comprendre loolu mooy benn cas beneen cas bi mooy comme exemple bi moom xam mën naa leen ko jox si sumbulu man ce que je m'attendais bu sumbulu mooy maanaam bu yeewoo euh, day fàtte carrément affaire de vie de Laalia loolu moom catégoriquement parce que day nekk loo xam ne amul sens quoi si man mais day dellu nekk jamono bi nga xam ne balaa muy xooloo ak Cheikhouna balaa muy am problème boobu noonu bu yow day laaj Cheikhouna laaj Jojo lu muy def fii kan mooy Jojo mu fàtte Jojo carrément ah histoire bi nga xam ne mais bu gisee Cheikhouna day fàtte Cheikhouna parce que jamono jooju la toll fi nga xam ne balaa naqaree am ah foofu la toll man je crois que foofu moo gënoon nekk loo xam ne lu réel la wala loo xam ne ni mën jàpp ni kii dafa dugg comment que mu génn di euh, yor ay euh, atteggiamento yoo xam ni maanaam ay comportement yoo xam ni peut-être day. Euh, day mel ni ku dof et ça pas dire que ni ki bu nekkee en commun rek bu génnee day dof parce que Soumboulou boo xoolee nu mu nekkee di acting nu mu nekkee di jouer dof la nekkoon di def ça vraiment ay soccoog ay nit ñi di wax mu no ça sa est c' est banal quoi benn instant yi ngeen jégal ma nag beneen bu wax bi nga xam ne moom laa bëgg dugg moo di kan mu di mbetteel euh, mbetteel dafa nekk benn film boo xam ne tamit c' est typiquement chez soi boo xoolee li nga xam moom moo nekk daw di wiri wiri peut être nga si gis lu bëri si biir mbetteel mais le problème mbetteel mooy foofu man morgue laa ko tuddee mbetteel moo ëpp dee si filmu Sénégal yëpp ay dee rek a fa ne nit ñi dañuy dee rek <laughs> mbetteel ñi dañuy dee de dee dee dee te aussi tamit man je ne pas comprendre nga defal ma premier épisode bu dóog bu dox boo xam ne ah, am na ay changement de scène yaa ngi jéem a histoire mais en ce moment nga delluwaat tey dama seetaan film bi tey la dimanche laa yow seetaan seen film bi dama seetaan film bi 15 euh, minutes boo xam ne film bi 30 minutes 15 minutes ñetti scène nga ma woon ñeenti seen nga ma wan mooy loolu xam nga du par exemple da far force film buy waaj a jeex ngeen wane benn affaire boo xam ne ah drame ñëw na xoolal eh kii dina ko rey wala du ko rey ay kii yor na paak non il faut ngeen joxe ay séquences il faut ngeen di bind continue dafa baax si film bu doon nangu mel ni média sénégalais wala télé sénégalais il faut ngeen nekk ñoo xam ne dañuy changer affaire bi il faut ngeen am continue yu bëri bëri bëri bëri si film parce que loolu mooy nit ñi ils vont sénégalais loolu laa leen joxoon pour conseil te ngeen xaw a changé tout parce que seen film bi moom dee yi bëri bëri na trop trop trop il faut ngeen commencé wane tam vie tam comme wiiri wiiri il faut ngeen commencé wane vie bu neex waa vie bu heureux mooy loolu daal il faut ngeen nekk nit yoo xam ni tam da ngeen di évoqué leneen loo xam ne nekkul biir Sénégal tamit beneen affaire bi nga xam ne moom laa leen wax mooy maanaam Pod et Marichou Pod moom euh, bi secte bi ñëwee moom amatul histoire.

am ay relation a beneen femme fan la mujjee ñun xamuñu Sala tamit mu ngi dund ak Edu ba léegi seen histoire mu ngi doox changé nañ li mu muñ foofu toog di xaar ak problème yi nga xam ni amoon na ko yëpp nakar yi mu doon dund yëpp ndax dana changé Sala à la fin nekk na ni ko kontaan gisuñu ko ñu dem si euh, papay ñaa ñaa ñang baalo en certain moment moom tam gisuñu ko lépp li nga xam ne def na ko si lu bon à la fin fan la mujjee hôpital lañ ko gis muy tël ay bal après dina tane am du tane gisuñu ko Chabi dugg na prison ok ñun foofu ngeen ñu bàyyoon en ce moment ñu yëg euh, xam li nga xam ne Chabi moom la dundoon prison bu mu nekkee prison lan moo xewoon si ginnaawam papaam loolu la doon def démarche nga xam ne moo gën a am important mooy siir siir bi ñu koy fàttaliku moom ak Sala la woon parce que euh, il était en train de se rappeler de Sala en moment jàppoon Sala yaa ji di pousse mu dégg Sala ñu jéegi-jéegi rek ni këpp léegi ngeen jékki-jékki rek di ñu forcer seen secte bi nii mais amoo que ni seen production nice na seen film bi dóob na li ngeen def rafet na tamit mais aussi bu leen li ngeen ñu tàmmal ñu ko changé parce que boo changé dafa mënoon ngeen ah yemale deuxième saison benn mujjanteel bu jeex comme ni ma leen koy waxee woon après ngeen ubbil ñu beneen boo xam ne mën ngeen ko tudd le ñu koy wala ngeen tuddee ko <laughs> Illuminati wala ngeen tuddee ko franc-maçon je pas mais aussi tamit mën ngeen évoquer benn affaire boo xam ne xëy na di ngeen ko mën a yeggali. beneen affaire bi nga xam ne moom laay dugg tamit mooy idole série bi nga xam ne bon la majorité xam ne nee nañ moom moo daal si série sénégalaise yi kon dañ ko koy nangul ah ñëpp daal ñi nga xam ne samay vidéo su ma defee commentaire ñoom lañ koy jox kon man dama leen koy nangul mais dafa am ay erreur yu grave yoo xam ne tam foofu mu fay am mooy lan je ne peux pas comprendre ni Sénégal man mun ma ko nangu sax mun ma ko gëm parce que musuma ko gis te musuma ko dégg tamit fenn journal lépp média amul ay jigéen yoo xam ne ñuy téye ay pistolet di dem di rab di di di arnaqué wala di bëgg a rey wala genre la noonu Latifa ñëw boo xam ne ay xam nga loolu amul Sénégal bu fekkee fiction ngeen di dawal comme ni ñu ko waxee da nekk carrément fiction mais bu d' ah, accord si corruption yi nga xam ne dem ngeen ba saison mais saison 5 bi ngeen ñëw moom a beaucoup yoo xam ne moom vraiment vraiment ah, day dama leen di catégoriser comme yeneen série yi man je crois ni ay ajout la peut être tamit da ngeen bëgg a joxe loo xam ni. mooy loolu mais man je vous dis que ni bu fekkoon ni da ngeen ko traduire langue yu bëri ngeen yóbbu ko si yeneen dëkk bi laa dañuy bàyyi seetaan après saison boobu kenn du ko seetaan fi ñu toll nii kenn du ko seetaan parce que tamit benn instant yéen a ngi débordé yéen exagéré yéen ngi yow film Sénégal wala société sénégalaise foo xam yeggul parce que man je n'ai jamais vu ay jigéen yuy rey ak wala ay. ay agression ak wala genre yooyu noonu Sénégal si biir kër yi. loolu laa ah, bi jeex bu leen fàtte commenter comme ni ma ko waxee nii wax leen ma seen xalaat prochaine vidéo bi nga xam ne moom mooy ñëw réaction vidéo la mardi ah pa pa pa pa. Uno vero davvero normale che piace a pochi Pochi, pochi Partiti da zero la band, mo sulla bocca di tutti Quanti occhi Sta merda già digerita perché non senti rutti mm. Lo so, l'invidia a ciechi ma ti dirò occhio dove tocchi